bismillahi rahmaani rahim islaam diine ju mat la islaam bu ñuy wax àq ak yelleef ci doomu aadama mooy diine ji nga xam ni jox na képp ku yàlla sàkk nga ne ci àdduna di dox jox na la say àq ak say yelleef ba mu mat sëkk amul lenn loo xamante ni islaam xaj na ko nit mu dox digganteem ak mu dund ci àdduna normal loolu nag moo xam nga nekk góor wala jigéen ndaw wala mag kenn ku nekk islaam jox na li nga yeew say àq ak say yelleef léeg-léeg nag nit ñi ni ñuy gisee diine ak ni ñuy jëfandikoo diine mën naa tax ñu xañ nit àqam mu jàpp ni islaam moo ko teg fekk demewul noonu loolu nag moo tax organisation yi nga xamanteni dañuy taxawu jigéen ñi lu bare bare ñuy joxoñ islam baaraamu tuuma mu mel ni islam dafa am ay àq ak yelleef yu mu leen xañ fekk demewul noonu dafa fekk ni nit ñi wala bokk jullit ñi yu ci bari seen culture seen aada da leen ëpp doole ba ñu xañ jigéen loo xamante ni islaam xañu ko ko bu ko defee yow mi xamul dangay ngay jàppoon ci turu diine moo tax ñu xañ ndaw si lii àqam ak ay yelleefam islaam moom buñ koy xool nit la xam rek bu joxe àq nit amul lu mu may góor di ko xañ jigéen wala lu muy jox jigéen di ko xañ góor dafa fekk ni dafa am li mbir yoo xamante ni góor ak jigéen dañ cee bokkul boo ko joxoon góor it du ko am amal njariñ boo ko joxoon jigéen it du ko amal njariñ léeg-léeg aada dina xañ jigéen am mbir mu jàppale islaam ak ko xañ fekk du islaam léeg-léeg aada mën naa jox nit àq te islaam jox ko moo tax nag dina mat di leeral sax su nekk situation bi am ban ban position la ci islaam am waaye nag bu dara xew rek nga jóg joxoñ baaraamu tuuma ni parité égalité équité mooyu mel noonu mel ni dafay mus ta nekk ba ñu bari sax jàpp ne ay lu bees la wala du lu bees moo tax tey jii dañuy jàpp ni dina am importance ci événement yu mel nii ñu leeralaat position bi nga xamante ni islam am na ko ak considération bi nga xamante ni jox na ko jigéen jigéen dafa am importance lool ci islam moo xam ci jaamu yàlla la moo xam ci liggéey la ak lu mën a nekk léeg-léeg day gis ñaari borom kër borom kër bu tere jabaram liggéey bu ko defee ñu yaakaar ni islaam moo ko xañ léeg-léeg nga gis jigéen guy réclamer nangam borom këram bañal ko ñu yaakaar ni islam moo ko xañ fekk du ci lislaam ca boroom kër ga la moo tax nit ki war naa xam diineem bu baax ndax lislaam laata muy ñëw fa mu fekk jigéen dëgg fi mu ko indi nii loolu évolution bu rëy a la dina mat nag di fàttali waaye lislaam ba mu ñëw jigéen moom kenn jàppewu ko woon nit objet lañ ko jàppee woon matériel bu la neexee nga takk bu la neex nga wacc bu jëkkëram faatoo sax ñu koy dondaale maanaam kon objet la rek marchandise la comme xaalis mais loolu moo fi amoon laata lislaam waxuma la arab yi mais tubaab yi woote tey sax ay droit ñooñu ba ci mille huit cent yii rek pour ñoom jigéen sax du nit kañ la jigéen commencé am droit de vote kañ la jigéen commencé intégré seen université di jàng yàggul waaye lislaam dañ xool rek ba lislaam tàmbalee ba tey lépp loo fi dégg góor am ko rek jigéen am na boo xoolee saxaaba yi sax lañ daan teree jigéen sax mooy lu metti lu mel ni ay xare donc lislaam dafa yërëm jigéen motax sah sax nak bu sahaba dem dan xarit sax dañ leen wax ne bu leen ray jigéen motax l'islam dafa nek diine ju bari yermande ju lool lo gis l'islam diko tere rek xamal ni ak lorangem da ca nek. lo gis l'islam diko ko digal xamal ni njariñam ak protection da ca nek motax may faral di wax ni position ba l'islam amul ci jigéen te jamono yonent bi ba tay ji mars 2022 position bi dara changé wu ci ndax lan jox na ko àqam ak yelleefam ba ma sëkk ni kiñ la ko joxee góor àqam ak yelleefam moo xam xale nga moo xam ndaw nga islam moom booy xool nit rek la xam te loolu yërmande mënu ko weesu ñii nag di réclamer tey ak joxañ baaraamu tuuma man dama leen di wax ni amoo leen problème ak l'islam yéen aada ngeen amal problème da daa mel ni xamoo leen loolu traitement bu ñaaw bu ñu traité jigen ci société yi loolu islam moko ñëk condamné moko ñëk téré tere traitement bu rafet bi ngeen gis ñu diko defal islam ma ko njëkk diglé digle si avant l'islam wo gis sax ñu tak jigen di jox can goo xamal da ci depo mu doon alalam mu mom wala nga jaxaso mom mu nekk ci lu leer condition yu leer sañoo ko takk di ko fase di ko ni sa dar bokoy torturer sax ci kër gi l'islam doxna ndaw ci sañ-sañ pour mëna sumé ko ko kay sétanul jigen ben yoon donc goor ñi taxaway bi ñi taxawé ci tamu ñaaw lool du l'islam mo leen ko digal dedet lool l'islam da ko tere goor goo gis nak mu yor jabaram yorin wu rafet xamal lool l'islam da ko digal islaam joxul benn góor autorité mu toroxal jigéen islaam joxul benn góor doole mu jël jigéen di ko diri ci naaj wi déedéet islaam doole ji mu jox góor ci jigéen mooy doole teral ko aar ko sargal ko sàmm ko doole jooju la ko jox waaye joxu ko doole toroxal ko weer ko déedéet moo tax jigéen bu yoroon milliard it nekk ci kër bu ko neexee dërëm waru ko ci kër gi ku góor ki mooy xëy yow dem lijjanti ku jigéen ki lii amul feneen boo demee ci dëkk tubaab yi ñoom ñu jàpp parité mooy góor gi day indi ku jigéen ki indi Sénégal nag loolu am na mais loolu islam sant ko jigéen sant ko jigéen boo fi jigéen gisee jigéen guy sonn ci kër di liggéey ngir yor ak njabootam mais loolu da koo neex rek wala boog situation yam nekk moo ko obligé mu di ko def waaye nekkul ni lislaam moo ni ko jugal nga yor sa njaboot lislaam waxu ko kenn déedéet waaye ñun Sénégal suñu société jigéen dañoo doon ay jàmbaar doon ay bañkat am sutura di suturaal seeni borom kër moo tax ñu ci bat gis fajar la ñuy jug dem liggéey ji ngir suturaal seen borom ngir yar seen loolu nag bul gis ndaw ci nekk condition yoo xamante ni baaxul nag nga yaakaan l'islam lislaam moo ko teg déedéet ci jëkkër ji la parce que condition yi lislaam tegoon nag pour takk soxna nag vraiment bu ko ñëpp respecté jigéen du souffrir benn yoon ci kër buñ demee sax ba souffrance am nga xam waji waa ji mënta yor ndaw si mënu koo dëkk mënu koo dëkkal mais am na ay conditions yi lislaam may ndaw si ni ko demal lislaam da ngeen xam ne pour man da koo jàppee benn princesse benn reine l'islam pour man loolu la jàppee jigéen te it nag ñu xam ni ñi nga xam dañoo am extrémisme maanaam seeni diine dafa tar dafa metti lu mel na ñu naan ay ay ay ay jihadiste xaw yu mel noonu di tere jigéen dem ci université dem jàngi mais loolu ñoom la ñoom la concerné mais loolu du l'islam université ba mu xawee yàggut waaye ba l'islam sosoo ba tey nag ah nañ xool boroom xam-xam yu jigéen ñi fi génn ci l'islam jamono yonent bi sallallahu bu ñu doon wax fiq ci sonna Sayyidatna Aïcha mooy nekk ci rang bu njëkk bi te xale la bu ñuy wax jàng na xale la fii âge yi xale yi tool dem di dem université Sayyidatna Xadija bu muy jàng di am xam-xam tulluwul sax âge boobu kon islam lu fonk njàngum jigéen la kon islam ku jox valeur xam-xam la jëmale ko jigéen Nafisa yàgg dañ koo dégg ci xam-xam ci islam waxuma dara mais Sénégal rek. soxna jaariyatullahi busa mii ñaata kaamil la bind mokkal alxuraan di taalif loolu kay doy na sëkk exemple ci ni lislaam yàgg naa jox jigéen àq pour mu jàng ba doon cadre di jàng bay jàngale mais loolu sax dafa sori poroxaan gii jigéen ña fa nekk nekk jullit di muuru jàng mokkal alxuraan am formation wax oh, mais boo xoolee loolu xam ni doone ma ñoon nekkuñu lislaam xanaa de kon nag boo gisee beneen dëkk tere jigéen jàng loolu seenu tarlaak seenu mettit loolu ñoom la concerné mais du lislaam lislaam terewul jigéen mu jàng terewul jigéen mu liggéey mais soxna muslima xamoon nañ ko ci jàmbar ci liggéey soxna may mun a mais yooyu ay exemple yu leer nañ la yu ñu gis doon ay jullit day exemplaire déedéet du lislaam moo leen xañ liggéey bu dee tere jigéen ñu liggéey la mais kon ñun yoonu salaam la ñuy roy la ñuy roy mais Xadija lan la woon du woon femme d'affaires du woon bu mag daan jàppale yonent bi ci lu bari mais loolu doy na misaal bi bu doon islam dafa tere jigéen di liggéey kon Xadija du liggéey déedéet dafa am yoo xam ni il faut ñu ràññ leen ni xam ne suñu aada wala suñu culture wala jëfandiku góor wala nit ñi ñoo ñoo ñoo ñooy jëf-jëf yoo xamante ni. da nga ciy tuumal lislaam rek waaye yoonu lislaam newu ci déedéet lislaam bu fekkee jigéen dane ko toogal sa kër dane ko bul taxawaal la ci jublu bañ mu taxawaalu la ci jublu waaye nekku lañ lay confiné sa biir kër nag tëj la waxuñu loolu di mais nag booy dangaa nekk jigéen goo xam ni sa boroom kër mënal na la def la buur nga toog nga jàng wala boog nga nekk koo xamante ni jàngoo waaye yaa ngi ci kër gi sa wifi internet mi ngi dox sa argent de tranquille yaa ngi lekk yaa ngi noos wax dëgg yàlla nag looy uti looy liggéeyee nag di sonal sa bopp dafa am jigéen ñoo xam aussi tamit ñoo bëgg di seen bopp wax man mënumaa mais nag dëgg yàlla nag bu nit liggéey nag teraanga àdduna moo ko tax jóg waaye sagam sa jëkkër am na teraanga nangu na la ko jox bu sonal sa bopp ci génn liggéey ji nag dafa am jigéen ñoo xam vraiment ñooy sonal seen bopp dëgg-dëgg am yoo xam jaru noppal leen seen bopp ci yenn yi beneen bi mooy parité am na baat yoo xamante ni bu leen ci nax seen bopp déedéet nekkul ni bu góor weexee jigéen daa war a weex bu ma ñuulee jigéen daa war a ñuul bu dee ma doon góor nga doon góor mooy parité wala nga doon jigéen ma doon jigéen mooy parité jërul ñu ci son ndax loolu mënul nekk bu dee it lépp lu may def yow danga ko war a def wala lépp looy def yow man dama ko war a def may parité jëru ngeen soon ndax loolu mënut a nekk parce que dafa am loo xam ordre naturel la ordre naturel mooy loo xamante ni du lislaam du loi dara yàlla bindee noonu mbindeef boo ko seetloo sax gis nga paanu ndox man moo ko bëggoon yenu ni may amee jafe-jafe waaye xale bu jigéen bu ndaw mën naa ñëw yenu togg góor man na ko jigéen mën na ko gis nga loolu amul différence waaye am na loo xamante ni ci kër góor mënu ko jigéen rek ko man waaye am na loo xamante ni ci kër jigéen mënu ko góor rek moo ko man loolu mooy tâche kenn ku ne am nga loo mën a def bu fekkee nag jigéen daa wëlbatiku nag bëgg a fekk si góor ci li muy def wala góor wëlbatiku bëgg li jigéen def moo di ko def loolu moom bu dee parité la moom lañ xam ne mënul nekk ndax lan bu buñ demee war a takk soxna wala dara waa léegi nañ ne ko jigéen ki mooy joxe can comme Sénégal ñu dëpp ko wala ñu ne ko góor gi day joxe ko jigéen gi joxe mais déedéet dafa loo xam góor la war mais jigéen nag ci mbaaxam xam ngay gis jigéen ñu am sutura am ku leen bëgg a takk ñu ñëw ci suuf ci ci suuf jox ko di ko kii takk loolu day am wala gis way juru jigéen bu baax gis ku baax yi yéene ko doomam te ko ci li nga bëgg wax mooy góor ak jigéen kenn ku ne na xam li nga war a def ak li nga war a def kenn ku ne na xam sa wàll da ngay gis góor ñoo xam sax daan ah yéen a woote parité yéen yéen a woote parité bu ma joxee dépense tey suba ngay joxe dépense déedéet mais loolu bokkul wala gis ku jigéen ku def naan lan moo tax ku góor di am ñeent jabar te góor jigéen benn jëkkër la mën a yooyu la ñuy xeet raisonnement yooyu la ñuy joxe daal parce que bëgg nañ lu góor def jigéen du ko def lu jigéen def góor du ko def li ma jaaxal mooy góor ñi ba tey réclamé wuñ parité ñun est-ce que duñu réclamé parité ni jigéen ñi di réclamé parité ñun dañoo war a réclamé parité comme ñoom parce que nag daa mel ni am na ñoo xamante ne ñoom am nañ ko te ñun amuñu ko loolu mooy.